waaw jërëjëf. ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo di discours bi nga xam ne Macky Sall amal na ko démb. Euh, daal di wax mhm. publiquement que moom du bokk ci li nga xam ne moom moo di euh, élection yi deux mille vingt quatre yi. yow ñu bëggoon si xam lan nga lan nga si xalaat lan nga gisee boobu la décision. waaw euh, d'abord ndokkeel peuple sénégalais. Mm. peuple sénégalais wane na ni. peuple mature la peuple bu xam lan démocratie la te euh, dafa def li may oowee euh, contrôle de constitutionnalité maanaam euh, sa jëf xool ndax méngoo na ak constitution peuple bi daf ko doxal et teg pression ci diaspora teg ko et quand je parle de peuple c'est dans toutes ses composantes mu nekk xale yi mu nekk jigéen mu société civile syndicats euh, une bonne partie en tout cas le peuple sénégalais Léon il tenait absolument au respect de sa constitution Mon constitution bi en 2016 euh, Macky Sall ci boppam explicité ko moo doon ñaari mandat mais pas plus euh, mandat consécutif Euh, dina ni euh, du nek candidat peuple bi mo gagné parce que l'air na ñëpp kam quand même ni Macky Sall tank yi mu don dox boobu ba légui ay bakken faatu ci euh, ñu bari ñak ci seen alal réew mi nek ci situation d'angoisse li ko waral moy ambition bi mu euh ak nopi jo xamni defon nako par rapport ak cette candidature là kon su dee euh, nee na dañuy ndokkeel peuple sénégalais googu di ko jaajëfal bu baax di regretter simplement ci discours président de la république a na profiter ci occasion bi gëna jox leçon démocratique et pédagogique aux Sénégalais et pour le futur ci kaddom waroon na mën a ne euh, déglu na suma constitution comme ni ma leen ko waxee woon damay respecter constitution bu kon du ma candidat wante waxam mooy du ma nekk candidat parce que am naa sax droit wante de euh, dama bëgg rek simplement kàddu joo xam ne yëkkati woon naa ko où euh, je, je me soumets parce que la loi a dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état de droit. C'est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et Lolo, c'était vraiment une très belle occasion boo xam malheureusement Ratenoko. de ko. may ñaawlu. kon yow jàpp nga ne yow jàpp nga ne dafa war a wax ne constitution bi moom moo ma tere ma daal di bokk ci li nga xam ne moom moo di troisième candidature bi pour gën a conforme ak moom cadre boo xam ne sax yëkkati woon na bind référendum en 2016. Mhm. ñu que ko constitution bi mhm. définitivement affaire mandat sénégalais yi jàng ci damay ne kilifa euh, waxuma sax kilifa nit buy wax da ngay gor gor lu ko sa wax bañ am passion euh, motax sunu suñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom di wax souvent di dalal xelu jullit yi di ne moom saa yu daan yëkkati cadeau euh, waxam il ne parlait pas sous le joug de la passion alors li tax ma koy wax mooy sooy wax mer wax loola sooy wax sa jëmmu bopp wax loola

Euh, Ousmane Sonko élection inclusive comme il l'a dit lui-même dans son discours le euh, Sénégal au-dessus de tout le monde mm-hmm. et respecter ça veut dire que le Sénégal euh, une bonne partie du Sénégal a décidé de mettre en avant Ousmane Sonko comme candidat, il faut le respecter. Et c'est tout simplement ça qu'il faut fallait faire. Malheureusement, discours vite en par parlant et euh, les gens retiennent. Il n'est pas candidat, mais moi, personnellement, l'Imadon Khar, c'était un message à la nation avec plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions, pas seulement sa candidature, mais parler de l'État du Sénégal, parler de la nation sénégalaise, comprendre la crise de confiance comprendre les problèmes que nous avons avec les institutions comprendre que ce qui s'est passé récemment c'est suite euh, au verdict donc euh, euh, de la justice et ainsi de suite maintenant rien n'est trop tard il a six mois sept mois pour n'être un vrai chef de l'État il ne sera pas à la tête d'un parti mais il sera à la on espère et on va le soutenir pour ça Moi, je jël les bonnes décisions nous orienter les institutions Je vais peu opposition comme majorité Je vais donc euh, le père de la nation. merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi koy sant mu nekk Moustapha Guirassy moom mu doon wax ci li nga xam ne moo di discours Macky Sall bi nga xamante ne am na ko dém moom aussi sànq seetaan nañ ko ci li nga xam ne moom moo di conférence de presse bu yeewi askan bi ñu doon wax tamit di réagir ci li nga xam ne moom moo di décision bi nga xam ne Macky Sall jël na ko moom nee na décision bi bien vrai que mu ngi koy rafetlu waaye tamit am na lu nga xamante nii daf ko waroon wax ne li nga xam ne moom moo di constitution bi ak tamit loi yi ñoom ñoo ma tënk ba nga xamante nii man mënuma bokk ci li nga xam ne moo di euh, euh, élection yi di ñëw waaye nee na loolu noonu la doon xaar ci li nga xam ne moom moo di discours bi te Macky Sall waxu si et que tamit ñoom ñu ngi rafet njortu ak tamit ñu ngi alerter tamit ci li nga xam ne Macky Sall wax na ko euh, ci li nga xam ne moo di organisation wu élection transparente yi nga xamante ni tamit day ànd ak li nga xam ne moo di inclusive inclusion wu ñëpp ñëpp daal di si bokk ñi nga xamante ni euh, jàpp na ne aussi tamit kii di président Ousmane Sonko aussi tamit li nga xamante ni président euh, élection yi aussi tamit war na si bokk. ba léegi yéen a ngi si ngeen si seen émission bii di sama gis-gis ngeen ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo di discours bi mag saala amal démb daal di wax ne moom du bokk ci li nga xam ne moom moo di deux mille vingt 2024 yi di ñëw tamit. li nga xamante ni waa yeewi askan bi aussi tamit def nañ conférence de presse sànq tamit di dànkaafu ci li nga xam ne nee nañ Macky Sall aussi tamit doon na ku nga xamante ni wax na loolu waaye ñoom ba léegi nii doon lu nga xamante nii dal na seen xel carrément et jàpp nañ ne am na leneen lu nga xamante moom lañ siy séentu et tamit. dañoo jàpp ne Macky Sall moom nee na du bokk waaye dafa nar a tànn li nga xamante ni ñoom ñoo nar a bokk am nañ sax beneen beneen extrait ci li nga xam ne moom moo di conférence de presse wu yeewi askan bi bu ko defee régie bu dee pare na bu dee am na am na ku nekk si ligne bi bu ko defee ñu jël ko avant ñu dugal li nga xam ne moo di extrait bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum tur bi sa ak sant bi sëriñ bi. maa ngi tudd Aliou Ba ñu gën ma xamee Kolaadu Ba. Aliou Ba yaa ngi seen chaîne bi nga xam modi La Vallée Info tay ñuy waxtaanee discoursu Macky Sall bi nga xam ne waxna wax na do euh, dootu du bokk ci li nga xam mom modi élection 2024 yow nan nga gisee décision bobu boobu. Euh, merci beaucoup ma ngi rafetlu seen liggéey d' -hmm. jërëjëf ubbi antenne bi permettre Sénégalais wax sen xalaat ci lu xew li mhm. en fait euh, comme tous les comme tout bon Sénégalais man tamit. -hmm. ma ngi rafetlu décision. président Macky Sall bi seetal na deru Sénégal ba mu set wecc fu ñu doon séentoo démocratie Sénégal moom tamit il a fait un pas